soq toj nen Franc cokaas soq mépp Franc day dem bàyyi leen tase fii ci arène nationale bi na ngay raas na ngay daw na jël ko laay laay la la ma koy jaay doole daan na ko daan na ko daan na ko moo ko bu doole moo yenu jàpp caa gën a mag du danga am talu Lamine kon def naa lu ca bokkul Fourrière la Lamine moo féete à droite armée bu Ngéyel Ibra Diouf Mbéwane production ko tëgg drapeau Lamine Gueye tey la 12 juin 2022 12 juin 2022 Lamine atim ñaari junneeg ñaar waaw fii ci stade wala boog arène nationale jàppante xeexuñu de eh Fourrière door ko droite drapeau Lamine la ancien maire xombal kokkan la moo Ndiaye ñu ngi koy bëgg ca états Séeri. Mado moo Ndiaye Séeri Mado. eh moytul moytul Fourrière moytul loolu. Fuyte Fourrière moytul uppercut yooyu. nga Grand Yoff nag daa yëngu eh Fourrière moytul kii gis nga armée bu ngewel mii. armée bu ngewel mii daa mel ni xawul de. li ngay bëre ak bu ngewel teg ko ci yoon. Fourrière ñaar defat la teglante bàyyi ma ñoon siñor da koo daan Bébé Diène daan ko Bébé Diène nag. ñu ngi koy ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla sàmm te aar ko defal ko bépp jullit waa ndax li mu jege metti na waaye nag looloy àddina bébé Salim tam maa ngi da nuyu depuis états dem na États-Unis de ah bébé la wuyul mu ne mbaa fàqoo bébé. Ramdan de fàq na. Ramdan dafa fàq. Pape Morlo. Pape Morlo daa fàq. Boy Bawal. daa fàq. waa ana Kayre Signor xam nga Kayre Signor. Kayre Signor xam naa ko bu baax daa am Kayre di am Kayre Signor. Kayre Junior dafa bëri woon ak Ousa 2 combat bu métti ba. waaw waaw ndeysaan ku mën a bëre. ak Zos 2. ku mën a bëre mu ngi fi hôtel teeru bi. non teeru bi Kayre Kay déedéet. ku xees gaa nekk teeru bi. waaw kookoy Kayre ku ñuul ki mooy mécanicien bi. waaw moo nekkoon garage Niay Coker. mango dëkk fii ci Dalifort. moo bëri woon ak Jelaani Pouy. bëree na ak Ousa 2 itam yaakaar naa ne. waaw ak Ousa 2 kalaaf la ak Zos bu Ngunjaan. mu ngi bitim réew Zoss 2 moo doon yor drapeau bi. xale yooyu yëpp Assane yaay tëgg na leen ay Zoss 2. Koña. Koña ay Ousseynou numéro 2. Mapol Mapol ay Pape Morlo. oh yaay tëgg na mbër yooyu yëpp. ak kan. Boga bu Pikine ak. Boga oh Boga ak ka ay waay Jetli waay Jetli digganteem ak mbërum mbërum lebu yi fii moom jam teeri seen ngoon nga fii. keroog dañoo bëre bay naaw. ah Lamine lamb ji lamb ji bi lay na ñu mën a bëre. Garga Mbossé cosaan. Garga Mbossé bu wàcceeg dàll oh. ay podam njaxe xam nga podam njaxeem xula toppal ma loolu xam nga podam njaxe moom la garga sol. Oh. ay panu lañ koy defaree. mooy nekk talon bi panu yi nii dawal panu. panu oto yi mooy nekk talon bi. kenn du Garga Babacar. Garga Mbossé. waaw mbërum bu Garga. Abdou Tall moom mbërëm gëj naa bëre roi des arènes. waa ndeysaan Modou xarañ loo yàlla na wér ak jàmm. boo waxee mën la cent mille. man de cent mille ji may dox di wooyee Modou gënumaa jubi tànk Modou loo gënumaa jubi tànk. a ah, nee na boo éca nee na boo taxawee mu dugg sa yaale. ah keroog taxaw naa de ne ko kaay jaar nga xool day sóob rek Modou day sóob xajul samay tànk. waaye le 19 juillet bul ko wàtte bul ko fàtte la 19 juillet kenn mënu ko fàtte ci lamb Lamine daa bokk ci lamb. lamb ji bari na coow Babacar. waa du ma la ñàkk bis benn tollu Lamine. soq ak Franc la de Babacar. xam nga lamb nag bu communication ba baaxee day baax. communication bi jàll na macha allah communication bi moo jàll. liggéey bi moo set macha allah. site internet yi takk ci waa waaw yow internet yi boo leen génnee ci mbir du sotti. déedéet. site internet yi lu garaaw la ñuy def. billaay wax nga dëgg. ah Lamine Seck caméra ak ci biir Ndakaaru Njaay gi ñu wër rek. ah yow tamit. loolu. sula la. bu ànd ak ñaata bulet. bu ànd fukki bulet ñaar. tey séeri teneng. ak aram Ndiaye teneng ak aram. waaw. ñaar laa yor Lamine del yemale. ma bañ jeng. bul aw ci digg bi rek nekk la ma ci digg bi. waaw moo gën de. tooñ baaxul yàlla bëggul koy tooñ. sinon yow man xiyam. as gor du tooñ. weng laay bañ. waaye waxoon naa ko dinaa ko waxaat jàppante nañu. jàppante na ma fi waxoon. Lamine waxal ak politiciens yi nañ bàyyi xasante bi. waaye Babacar xasee daal ku amul argument rek moo koy def. politiciens yi mu ñu ñu. juruñu ñu tamit de. moomu ngeen réew mi itam nag. duñ ko nangu Babacar. dénk leen ay ndomb rek war ta ngeen yaakaar ne ay buur ngeen wala ay bummi. duñu buur duñu bummi laaj laaji ndomb war ta tax nga yaakaar ne buur nga wala bummi. duñu buur duñu bummi. ëpp ngeen xam ci réew mi. bu dee am nañ ko sax. yàlla tombale ngeen war a jiite rek jiite. ñu ko ci am da bariwul xam-xam. waaw ndax xas sa def foo ko dégg pour man ku koy def bariwul xam-xam man. bu dee xas saaga Lamine wax bu ñaaw ah loolu man pour man sa xam-xam bariwul. déedéet man de du ma bàyyi kooku xel man Babacar. Eh, eh, eh. da koy daan de. déedéet wala. Ah. Fourier bañ na de. daanaka ko de. ah armée bu ngeel dafa naag son de waaye Fourier xëy dina ko daan de eh eh daanu am na de daanu am na de. daanu am na de. armé Fourrière dafa juum am na lu am de. Lamine lu garaaw am na. waa ji Lamine li ma lay wax. lu li ma la mën a yëgal mooy. baax na. mais bul bàyyi. waa bàyyi wóorut. lu la xullee boole. xullee xullee demal ma ci mbër avertissement. ah. arbitre mbaa juumul Babacar. man daal li ma mën a xam mooy. première action bi. action njëkk bi day. na la. am na lu fa xew de. ku may woo Babacar. koo xamul ne da ngay liggéey. wala la. ay liiru. Paa Jaan. sama waaji la Pape borom Baye Parfum. ah borom Baye Parfum maa ngi koy Pape bëgg naa jox waaw waaw Pape mas na maa jox benn yoon parfum. waaw kay. c'est que yàlla daa dogal la ma fa a bëriwul. ma woon a pos caaroy. wala bokkul. mais est jum bàyyi parfum fu mu ne. Kër Massar. kooka sori na ma mosuma faa dem. ak Gambie. bàyyi parfum continent la si Kër Massar. wala Gambie. mbaa ñu dem ba Gambia Gambian people. waaw. may nuyu waa Gambie yëpp. suñu père Ndongo Cissé. waaye père Ndongo Cissé kenn day moom. keroog daf maa vocal ne ma Babacar. waaw wax wax wax wax ba sonn. ndeysaan ñëw vocal ma ne ma baal ma maa ngi wax Babacar la. waaw ndeysaan mu ni waaye benn la. waaw benn la. Lamine ak Babacar daal loo ci yóbbante kenn ki kenn ki jot. loolu moom leer na ma. père Ndongo Cissé ku baax la. te bëgg làmb. ak kan Jibal Touré. Jibal Touré ñu ngi koy nuyu promoteur. Jibal Touré ca Gambia. wallaahi. ay ñoom Paate. Paate Gambia. ñoom Gils. Gils Gambia. Jamaïcain borom na 14 août. ñoom kenn du moom. borom na soog fils de balle. borom nationalité yu bari yi. Ah, bari nationalité jam. waaw. jënax yi dàmbala nag. fu ne lay dugg. am na Guinée am na Gambie am senegal jam rek. dina xëy na États-Unis ngi nii de. dina la ne Dubaay a ngi nii. mbaadu dina ne Turquie ngi nii. ndeysaan toogal déglu ko. da ngeen a yàgg de. dama koo xam. jam ni ma ko xamee cëttu làmb kenn xamee wu ko nii. da ngeen da ngeen a xamante ne. lii kañ maa la ko wax. ne woon nga ko fi naa la yuuxoo sàcc moom moytu. voilà dama koo xam. dama topp daf topp di ma filmé. suba teel. waaw ah suba moom damaa fajoon suba teel. mooy xëy di wut weccat mooy waxi làmb ma attaqué ko. indil ko coow ne ko jam waxi làmb ji teel. ñun dañuy liggéey weccat laa soxla ba pare. ndekkee gu ma ngay wax lam xanaa balaa nga ne lam ñu ndekki saako bu deful da taxaw lamin mais boobu kooku lima rek moo ko taxoon a jóg. kii na moytu moytul ba tënte ah, fi nga dugg waaye fourrière fi mu jàpp itam dëgër na de waaye xale baa ngi buse moom de taf na ko daa sori dinañ génnaat saako bi. fourrière ni mu def fu mu teg bopp baaxul Babacar. dara parce que moom kii da koo sut moo tax Fourrière bëri ci suuf la war a privilégier Lamine. daa war ci suuf la war a féete moom Fourrière. damay kee nee na. waaw. doon na la fi woo naan ko jam. waa jam dey xam nga li ma la wax rek moom daa mën a yàq noos. nee na nga ko. kilifa laay waaw ah, ma ko kilifa laay mag mi wax kilifa nga bëgg koo deraas jam xamul yee am peccam day romb ba baara mbay. am yéegam. di romb di rombi xob. ma ne ko kilifa laay waxal bàyyi ma ba mu waxtaan ba pare. waaye déggal Ayda mooy way noonu ak a mën a way. coon deux tamit a ngi fi woon. coon sekk numéro deux. waaw. ndeysaan kooku de war naa mën a way xanaa. ku romb nga koy waxtaane sama gars yi dañu lay ragal. waaw moo ko wayoon. ku la ah, xale bi dëkk Kaolack. waaw kooku dafa Assane Gueye Gambie la mujjoon nekk. mi ngi fee. ndeysaan oh coon ku mën a way waay. moo doon way sànq. ku la romb nga koy toogee sama gars yi dañu ray ragal. waaw nettali la waxoon. ba kenn wóolootul wax lu ci moom. waaw ndax sa ñàkk bàmmeelu biir. waaw mooy nettali kat yi. waaye bébé Modou Lo day organisé le 19 juin incha allahu rabi ca Italie. dimanche bii nu jëm. mbapat la fa teg teg fa 1200 euros. 1200 euros de xanaa boo ko millier ci CFA war naa bari boo ko multiplier. waaw million atte nañ leen de lu xew bu na da ngay sensé batterie mu gaaw rek arbitre suuf la ne Lamine say wax jali muus la Lamine xale Lamine faw nga moytu faw ma moytu wallahi al azim addina waaw des koy jéem a xam wallahi wala nga la nga ku ko xam mu lay digal wallahi tax di la tere wallahi bu la dëgalee nga bu la teree nga bàyyi wallahi dëgg la dara ñoru fi bañ koy macc nag maanaam kilifa dafa am solo baba waaw boo ko ñàkkee kay déggoo li ma la yaa kéwél ci àll yam fu la bërëb fekk jam la yóbbu la këram ndawaloo la. wallaay kilifa ku ko yóbbu wuti ko. a ko am sax. nangu kee fi nekk bañ gee nangu. ne nañ daal nee nañ daal bëy. bu ko bukki bu ko bukki bu rek dafa génn gétt. waaw ah bëy kay. bu génnee ci biti bu ko bukki fàttee. daa romb gétt ba rek. moo tax sëñ Moussa Ka noonu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 Fourrière war na ko de arme foo jëm ah. sukar bi sukar bi sukar bi maa yenu kenn na ca laa ilaha illallah arme eh songule ah. songule ah. songule songule songule mu bañ ay yaa ngay bëre waay Lamine lii neex na waay. waaye lii laa bëgg ci France. lii lañ ci bëgg da ngeen a war a bëre ba def lii. danañ bëre. ñun. déedéet. bëgguñu arbitre suuf la na combat ba jeex na. déedéet. leen mu sax. waaw waaw bëre leen ba mu sax. amateur yi na yéen ñaan ñëpp a mën a waay waay wan leen nu bëre la 19. waay 19 juin incha allah. ay waay waay. eh Mor Diouf. ana Mansour Ba. jàmbaar. papa papa Serigne Dame. Serigne Dame Papa Gueye. eh waay Dab a ngi bëgg boppam. Dab Daan daan eh, dab dab ne na ko nii. xuleel lu xew yaa ngi reede xalaat dañ laa dig wala nun lay ree ñun lay wax bopp ba tey ay leçon la ay leçon la dama yar waaw ab yar da lan fii waxtaan suñu bopp lañ ko njëkk waaw te moo am teef ay entraînement commencé dee ma defi ko man ba ñaq entraîné ba ñaq gis nga boo ñëwee guddi lekkal lu boo tëddee da ngay nelaw ba yandoon yow da nga nen nen nen yan mais du nen yi pëndes yi yooyu moom du ma yooyu man nee na ginaari Bawol yee laay lekk man. ah Abdoulaye Ndiaye sànq ma nee na ma aram a ngi lay nenal. waaw aram aram waaw mais man samay nen ya dëkk ba lay jógee te nag mooy yónnee aram nen yi. Ah? aram defar. wala yaayi aram yónnee aram noonu lay deme nen yi waaw aram di waxoon na ma dina ma defaral cere de. waaw waaw non dina ko defar. Ah. semaine bii ma xool no waajal semaine bi dina la defal cere. maanaam bu defarul cere ji di nga ñetteel. non déedéet dina def defal cere indil la ko cere ji da koy defar sa indi ko ba sa kër. ah dina la koy indil non. xoolal yow toogal sa kër aram ay toog cere ji defar ko jël oto ñëw indil la ko nga reer. aram yaay jëkkëram. Ah, waaw. la yàlla waana eh, ko jabang. soo way ah, moo la sut. moo la sut dafa waaw yàgg na ko koo def jëlal xule jël ko jël ko eh bàyyil kii waay xoolal kii li mu yàq ay waay xool Fourier xule xool Fourier ñetti defet sama yaram bi taw na Lamine. yërëm oh, Fourier wallaay yërëm naa ko ay lamb daa métti mën a bëree. bu oh. sa day entraîné day entraîné billaay day entraîné. Eh, xoolal ma lii. xule. tungeem luy problème am.